may gim ñu may ñu fekkee waxtaan wi ci teewaay bu rafet bii ak ci déglu gu rafet gii kenn amul sikki sàkka ci ne waxtaan wu mel nii askan wi ci boppam dañ koo aajowoo jullit yi dañ koo aajowoo ndax jafe-jafey biir kër dafa doon loo xam ne nit ñi dañ koy dund bu baax a baax defe naa ne su ma laajoon ci ñi fi teew ni ñan ñoo fi nekk boroomi kër ñu bari danañ yëkkati seen loxo walla déet te ma ko far laaj kon ñan ñoo fi nekk boroomi kër kon man si ñuy yëkkati seen loxo ci laay bokk kon kon ñu bari la waaw suñ laajoon beneen question ne ñaan ñoo ci ñi nga xam ne mas nañoo dund problème ci seen biir kër ndax ñi yëkkati du bariwaat nañ ko laaj kon ñépp ci biir na ndax léegi am na ñoo xam ne ñu yoree kër ba léegi mosuñoo dund problème ci seen biir kër su amee nañ yëkkati seen loxo am na ñaar wala ñett defe naa ne te jàpp naa ne ñooñee ñooñee am nañ lu jafe ñu ne biñ yoree kër ba léegi mosuñoo am benn jafe-jafe wala problème ci seen biir kër am nañ lu jafe kenn sañu koo weddi nag maanaam kenn sañu koo weddi ndax ku ne ci biir këram ne la maa nga fay dund te awma fa problème kooku mënees koo weddi waaye jàpp naa ne xëy na biñ yoree kër daa yàggagul ndax su kër su kër mënoon a mucc ci problème kër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci kooka mooy yarkat bu mag bi mooy yonent yàlla bi waaye këram muccul ci problème jafe-jafe am na ci biir këram ba àgg ci tar ba metti ba mu beru waxatul kenn ba nit ñi siiwal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fase na ay soxnaam ñu ne yonent bi fase nay soxnaam Omar ibn al ne bala ma koo gëm damaa dem ba gis ko laajal ko ko sama bopp Omar kero rek la bëgg a gis yonent bi kero la ko masa bëgg a gis mu jafe ko lu ne la daj pour fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi beru woon saa bu ñëwee ci Bilaal ne ko demal ne ko mën a Omar maa ko bëgg a gis su bilaal delsee danaan ko ah, waxul dara de mu toog di xaar rek kon loolu da lay wan situation bu bu tar la woon bu metti la woon bi mu demee ba gis ko ba nuyu ko li mu ko jëkk a wax mooy ndax dangaa fase say soxna mu ne ko déedéet mu doon ne alhamdulilah door koo laaj mu nettali ko mbir mépp ni mu tëddee bi mu wëlbatikoo moom li mu jëkk def mooy dafa dal ci kaw doomam ji nga xam ne dafa doonoon soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Xafsa bint Omar ibn alxataab radiallahu taala na waa këram lu mat weer yàlla door a wàcce ci moom alquran ne ko woo leen nga laaj leen ñi fi yàllaa ko yonentam indi woon ne leen nañ toog muñ ñi àdduna kese andi nag nga ne leen kaay leen ma jox leen ci àdduna ji ba ngeen doyal ngeen dem seen yoon bi mu defee noonu ñépp dañoo tuub ñenn ñi jooy ne daal yàlla ko yonentam la ñuy tànn waaye duñ tànn àdduna kooku benn problème la woon ci problème yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund ci këram waaye nag du benn boobu rek yu bari la buñ xoolee li ñuy dund ci jamono ji ci ay jafe-jafe ci wàllu kër yàlla xam na ne ñi nga xam ne dañ leen di laaj ay problème yu kër diggante jafe-jafe nit ak soxnaam wala ñu ñoo xam ne dañ leen a bëgg a maye sotteegul wala ay doom wala yu mel noonu da mujj yow mi ñuy woo di la laaj yooyu day mujj da ngay jàpp ne société bi yépp ay problème la kon lii mu doon wax léegi bi mu koy wax dafa nekk ci sama xel mooy nit ñi aajowoo nañ jàng nu ñuy yore kër góor ñi aajowoo nañ ko jigéen ñi aajowoo nañ nu ñuy nekk ci kër ñoom itam kon ay formation war naa am moo xam ay séminaire lay doon wala tuur yu ñu koy jox waaye góor ñi ci boppam war nañoo daje di jàngat lan moo leen war pour ñu mën a yor kër jigéen ñi lan moo leen war ngir ñu mën a nekk ci kër gere ko loolu aajowoo nañ ko te fim ne loolu mu junj noonu am na réew yoo xam ne àgg nañ ci ci pays golfe bi am na ci ñoo xam ne passé àgg na ci soixante cinq pour cent téeméeri sëy yuñ fas yu ne juróom benn fukk ya ak juróom dañuy tas mu des fanweer ak juróom képp ñu ne kon loolu kaarisa la maanaam catastrophe la bu mag boo xam ne aajo na saafara dem nañ ba àgg ci ñoom wut ay centre de formation yoo xam ne ca lañuy ñuy góor ñi ak yoo xam ne ca la ñuy former jigéen ñi biñ ko tàmbalee di ko def gis nañ ni ñi génne ci centre yooyu ba noppi bokk sëy ñoom bokk sëy biñ xoolee santasu fase ci seen biir mëtatul dix pour cent ci ñu jóge woon pour cent loolu kon daf lay confirmer ni lu ci bare bari ñàkk xam la nu ñu yore mbir mi ñàkk a xam nu ñuy yore kër léeg-léeg lii nekk ci bopp kër gi lii tax nit ki di gaaw a passé gaaw koo dikkal ndax saa bu passé ñëwee rek moom échec am na maanaam fasal am na la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kasruha talaaquha maanaam saa boo xam ne fase nga ko mel na ne faar gu dëm gu dëng googu nga xam ne ci lañ bindoon jigéen mel na ne damm nga ko fase su amee rek échec am na ndax parce li muy jur dafa bari ci ay musiba doom yi ci juddoo woon daanaka duñ xam fuñ jëm lu gën a bari ñu jaaxle la ñuy doon ak jaaxle la ñuy dund lu tax seen yaay ak seen baay ànduñu famille yi nga xam ne ñoo bokkoon waxtaan ba maye seen ñaari doom ñu tàqali ko lu gën a bari ñaari famille yooyu ñagas ñagas day dox seen diggante sëy sëy pour mu doxat seen diggante day jafe lool ndaw si tas ba dem waa ji ñëw takk si ko ka ko jëkkoon yor ab noonu la koy daal di jàppe moo takk sama jabar ja su ko defee li muy jur ci biir askan wi ci ay ñagas-ñagas ci ay diggante kenn xamul nu mu kon nag loolu moo tax nit ñi war a jàngaat loolu ba xam ko ma ne bokk na ci li gën a bari ci luy tax nit ki gaaw a échec ba àgg ci loolu yi ñu tudde passé mooy ay mbir yoo xam ne mbokk bi tudd na ko ci biir waaye dama koy gàttal ak fësalaat ko bi ci jëkk mooy nit ki dugg ci sëy bi am yaakaar ci ne problème mën naa bañ a am léeg-léeg nit ki na muy jànge misaaliye gi maanaam ci ci lislaam ñu ne nii lay yare nit ki nii la koy def su àggalee yow mi ko jàng en tant que ku gëm sunna gëm lislaam nekk ci boo watul li nekk ci sa xel mooy man kon dama war a dund ci kër goo xam ne benn jafe-jafe du am su jafe-jafe juddoo rek nga ne kon man échec naa kon nit ki bi muy dugg ci sëy bi war naa am yëg-yëgu ne am problème ci sëy bi wala am problème ci biir kër gi famille bi loolu nekkul gàcce waaye lii gàcce mooy am ko ba noppi xamoo noo koy saafaraa foofu la musiba mu nekk maanaam problème bi am nga yëg ne am na amut benn saafara bu dul na dem ma dem rek kooku mooy échec kon nit ki muy dugg ci sëy bi muy góor muy jigéen na yëg ne mi ngi dugg ci mbir moo xam ne projet la bu bari ay problème waaye na ànd ak teeyu problème bi saa bu amee nan lañ koy saafaraa bokk na ci yi indi jafe-jafe yi léeg-léeg suul ixtiyaar tànniin wi ñaar ñi ni ñuy tànnantee avant ñuy ànd ku góor ki ak ku jigéen ki lu gën a bari léeg-léeg sentiment diine bi ne ci xol bi day tax mu jàpp ne ginnaaw moom am na diine kii am na diine jëratul muy xool leneen nañ daal di ànd rek ci loolu buñ àndee ci loolu dox tuuti gis ne am na yeneeni mbir yu nekk seen diggante yu am seen àq ñoom itam comme ni diine amee àqam te yooyee doxut yooyee dañoo taxaw yooyu seenub taxawaay mën naa dem ba gàllankoor sëy ci boppam yooyu léeg jëm mi jëm mi nit ki ak nit ki ñu bëggante ci lay bokk léeg nit ki ngir yàkkamti sëy bi ak aatifa diine bi muy sentiment diine bi ak ni ko ku góor ki amee ku jigéen ki dana tax ñu fàtte sax di xool ba xam ñoom bëggante nañ ci jëmmam ndéet daal di ànd suñ doxee tuuti nag ay problème yu ndaw daal di tàmbali juddu ñi daal di tàmbali xalaat nag ndax kii sax man war naa ko bëgg wala waruma ko bëgg lañ waroon a jëkkee ñu mujjee ko moo tax dangay gis ñuy sëy ba mu yàgg ñu ne man mosuma ko woon a bëgg te kenn forcé wala ci woon yaa jekki woon jekki ànd ak moom kon loolu soo ul ixtiyaar la léeg-léeg wu ñàkk we tegu ci yoon day juddoo ci geneen anam moo di ñoom ñaar ñii bi ñuy ànd dëgg la bëggante woon nañ waaye bëggante gi àgg na foo xam ne tax na xoolatuñ leneen xoolatuñ leneen léeg nga gis ku ñëw ne ah man de dafa am mbokk moo xam ne moom laa waxaloon ba bëgg koo takk dëgg la sax nag day muuru dëgg la sax day muuru waaye sama yaay daal daf ma imposé koo xam ne mu bëgg a dugg ci kële bëgg ko wutal ay pexe waaye fekk na du loolu maanaam jëmmi mbëggeel moom yi su amee ba noppi itam te melokaan yi nga soxla ci diine sotteegul bul yàkkamti benn mbokk def na ko ne jël na décision pour bàyyi ku jëkk ki takk ku mujj kii ma ne ko te ngaa bañ a gaaw ginnaaw muuru wut te nee na bi mu ko laajee ndax pare na pour muuru dane ko déedéet mu ne nag moom déedéet jooju mu ko wax sax daf koo yéem ndax ku dëggu la su fekkoon ne borkat la mën na ne ko waaw dugg ba ca biir muuruwut waaye lim ne ko déedéet tax na mu am ci moom yaakaar ma ne ah ndax déedéet jooji mu wax yow mënoo ne tekk waxtaan ak moom fii ñetti weer ñeent juróom fiig at ndax mu dellu gannaaw ci déedéet jooji ndax ki ki mbiram leer nañ ba mu ne la déedéet kët soo ma mënee ndaxanteeg moom ba mu ne la waaw waaw kooku des na mën a gën a rafet ci moom njort kon bul yàkkamti naxanteel ak moom féeg at mu ne yee loolu bari na ma daal xam ne kon mbir mi leneen a nekk foofu loolu exemple la boo xam ne pour ñu xam ne léeg-léeg problème yi ni muy amee ca tàmbali ba la woon léegi léeg mu bindoo noo xam ne it nit ki léeg-léeg ci côté jigéen ji lay doon niñ ko jàngale lislaam ak niñ ko ko wone ak nii muy séyeg waa ji am na yoo xam ne am na formation bu mu laaj boo xam ne nekku fa mooy lan mooy nit ki day takk jabaram di sëy nekk ci jàmmam ñuy dox seen lépp di dox ba mu yàgg xelam nekk ci takk keneen problème daal di judd ci diggante bi problème judd am nañ ci ay cas yu bare bare bari yoo xam ne bi ci mujj rek maa ngi koy fàttaliku xëy di ñàkkul ku góor ki sax mën na fee nekk soxna si def ne man yëguma woon ne sax borom këram dafa bëgg a takk soxna waaye dafa woote ne moom da doon sëyeeg nit dem na ba mu yàgg bëggatu ko te sax moom ba muy sëyeeg moom ay parents maanaam yaayam d'accordu ca woon papaam d'accord woon waaye yaayam d'accordu ca woon mu ne nag defuma woon sama waxu yaay dugg ba ci biir ba mu yàgg bëggatuma mu ne ko waaye bëggoon nga ko bu njëkk mu ne waaw ñaata at ngeen sëy ñeenti at mu jaaxal ma naka lay sëyeeg koo xam ne bëggu ko ñeenti at jàmm ne beey ma ne ko ndax dafa xalaat a takk soxna mu ne ma dafa takk ñaareel sax ne ko waaw kon problème bi li tax maanaam mbëggeel gi ngay wax ne bëggoo ko woon loolu jàpp ma ne noonu la deme bëggoon nga ko waaye li ngeen doon sëy dangeen ngeen sëyul woon ci kaw baasu nga jàpp ne moom mi day dem ba mu yàgg mu takk soxna wala am na nu ngeen doon sëyee noo xam ne li nga déggee ci dund dundinam mooy takk soxna li muy firi mooy ki ma yoroon bu njëkk bëggatuma ko te loolu lenn wéru ci ki nga yoroon bu njëkk mën nga koo gën a bëgg tey ba noppi dem takk soxna ki nga yoroon bu njëkk mën na laa gënal sax ki ngay dem di ko takk waaye yëg nga ne war ngaa takk keneen loolu nag nit ñi dañ ko war a dund ci biir kër gi xam ko maanaam mu yëg ne dem takki soxna taxul taxul ne moom da nga ko woyofal wala da nga ko doyadal wala fa mu nekkoon dafa nekkatul dafa war a yëg ne lislaam dafa am lu mu tër kenn ku ne dafa am yan bu mu teg ci sa bopp boo xam ne boo ko dee xool da nga naan lii ab yan la maanaam responsabilité la boo xam ne dañ lay nattu ba xam danga nga ko taxawe wala déet dëgg la jigéen ji bu sañoon ki muy séyal moom dong ñoo fi bokk nekk keneen du fa nekk keneen du dugg si loolu moom li ëpp si jigéen ñi li ëpp ci jigéen ñi noonu lañ mel du ma ne ñépp a nag ndax léeg-léeg am jigéen ñoo xam ne sax bariwut waaye ñooy dem wutali seen boroom kër keneen loolu am na waaye li ëpp ci jigéen ñi bëgguñu keneen ñëw loolu defe naa ne moom ñépp xam nañ ko kon indi gi keneen walla ñeneen loolu ab yan la ci jigéen ci waaye moo xam ne yan boobu lislaam moo lislaam moo ko ko yan mu war cee liggéey war cee rafetal comme yeneen yi muy liggéey di ci wut tuyaaba mu xam ne góor gi dafa am luñ ko yan dafa am luñ ko yan xoolal yarub góor gi lislaam ni mu tëree mbiram dara ci contradiction nekku ci fenn fu nekk lam fa teg rek mooy la fa jaaru ku góor ki yow mii teg ci soxna yaay jóg dem labati ko te pourtant sëy bi yéen ko bokk yéen ñaar de lu ciy jóge lu ne yéen ko bokk yéen ñaar yenn ci yam képp muy ay doom muy leneen waaye yaay jóg dem boo demee ba àggal yay jël sa alal joxe moo tax borom bi tabaraka wa taala ba mu ne arrijaalu qawaamuuna ala nisaai bima faddala allahu baadahum ala baadin daf ne wa bima anfaqu min amwaalihim yaa koy li muy firi mooy yaa koy jox muy lekk ca la ngay lekk nag di ko jox muy naan ca la ngay naan boo solee jox ko mu sol foofu xadis bi mbokk mi tudd na ko léegi foofu it boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour ne rek amul benn contradiction bi ne boo solee jox ko mu sol waaye waxul ne mu sol lu mel ne li ngay sol xam na ne góor ak jigéen bokkuñu li ñuy sol ndax moo waxoon feneen ne laana allahu almutashabihaati min annisaai bi rijal day araam ci jigéen ñi mu sol colum góor gi waaye nag boo solee jox ko mu sol boo solee li ci yow jox ko mu sol la yàlla ca moom waaye bul sol daal ba woddu ba ku la gis xam ne woddu nga nga bàyyi ko mu rafle ba ku ko gis xam ne rafle na kon lépp lu aju ci lekkam ak naanam ak colam ak fa muy dëkk dépensam daal lépp yow la war moom jigéen ji nga jël ba indi ko ci kër gi kon nag kooku balaa indi nit ki war naa xalaat bu baax a baax ki muy indi xam ne aw ab yan la yan boobu nag bi ko ko yàlla joxe ba àggal mu bokk ci xikma sun borom tabaraka wa ni jigéen ñi ci kaw suuf ñoo gën a bari góor ñi ci kaw suuf te ñépp dañoo war a sëy ndax askan wi bari ñu yar nit ñi xeet wi teg tekki dara am njariñ ci la ne góor gi soo ko mënee yoral ñaar waaye jamono yi ngay dem di wuti ñaar bul fàtte ne li nga doon dépensé ci ku góor koo ki kenn ki nga yoroon loolu day fulu dañ koy duble bu dee dix nga doon dépassé tey nag vingt lay doon kon bala nga indi keneen war ngaa xalaat ci loolu bu dee ñett ñi da nga cay tegaati lu toll noonu bu dee ñeent ñi nga tegaat ci lu toll noonu ñu ne la yemal foofu nag kon ñu yëg ne mbir mi ab ab yan la ak responsabilité akub liggéey boo xam ne nit ki daf ciy wut tuyaaba kon dana jaadu lool doonte kenn la yor di sëy ak moom ci seenu dund ñu yég ne bokk na ci seen bunti jaamu yàlla yi war a mën a jaamoo yàlla suñ ko mënee mooy kër gi kenn rek waru fee nekk di wéy waaye nag su fekkee préparé wul jigéen ji ba loolu nekk ci boppam mu xëy xëy benn bés rek takk kenn indi day jàpp ne moom mii xeet na lim doon def wala ni mu amee woon solo fi moom ameetul noonu solo moo tax mu dem takki keneen te fekk yooyu yëpp dara mën na caa bañ am su ko defee problème de daal di juddoo ci loolu ba sëy sax daf cay tàggoo léeg-léeg kon daal buñ toppee mbir yi danañ gis ne wax dëgg yàlla dafa mel ne dafa woo programme boo xam ne dañ koy préparer moo xam ab séminaire lañ koy wutal wala santar wala yu mel noonu jullit yi war nañ ko bàyyi xel rawatina mbokk yi diine ñoro ñi xool nan la ñuy def ba am formation yu baax a baax ci yar góor ñi ba ñu mën a dem yor kër yar jigéen ñi ba ñu xam ku nekk ci kër lan mooy say droit ak lan mooy say devoir man jàpp naa ne lu mel noonu su amee ni ko yeneen i réew essayé mu doon lu am njariñ defe naa ne suñ ko essayé woon fii lu am njariñ te du lu jafe nag benn séminaire rek nit ki mën na cee dugg am fa juróomi fan walla une semaine génn rek mel noo xam ne bokkut ak nam meloon léppam soppiku na léppam changé na parce que xam na lu mu xamul woon dund na ci wàllu pratique loo xam ne dund ko woon mu génn mën a jariñ ku jigéen ki noonu lu gën a bari ay problème dana am ci diggante ñaari way dencante ba tàggoo nar a dox seen diggante te ku góor ki mi ngi def lim man lépp ndeysaan léeg-léeg waaye ku jigéen ki am ci côté am lu fa nekk loo xam ne moo tax ñoom ñaar ñi mënatuñoo àndu te loola boo ko seetloo lépp ñàkk formation moo koy waral ñàkk xam moom lan moo ko war ci kër gi ak lan mooy mbir yoo xam ne daf ko jàppe yu ñàkk maanaa fekk lu am solo la loo xam ne su ko taxawee woon sëy bi nii mu mel mën na ne bañ mel kon noo ngi dellusiwaat di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul ñu koor yi jéggal ñu mboolem bàkkaar yi te dimbali nu ba jafe-jafe yi am ci kër yi ñu mën a trouver ay yoon yoo xam ne ci lañ koy saafaraa ndax mënta ñàkk yàlla nu borom bi tabaraka wa jàpp ndalal loolu di ñaanal mbokk mi doon def waxtaan wi ak ki ko doon jiite borom bi tabaraka wa taala dolli leen tawfiq am na njariñ lool am na njariñ lool lool yàlla na suñu borom tabaraka wa taala jariñ nun ñëpp ba buñ ci jógee gis ay coppite ci suñuy doxin ci wàllu jikko ndax jikko day cadre boo xam ne bu am solo la ci lislaam noonu mu ko waxee boo wéralee sa pas-pas ba doo bokkaale wéral sa jaamu yàlla ba doo dugg ci biddaa la ca sës nag mooy sa jikko dafa war daal di rafet su fekkee rafetul rek ba yooyu jiitu woon am na lu ca sikk am na lu kon da ngaa war a jël si vérifié waat sa bopp yàlla noonu borom bi may diine ju sell ca pas ba sell ca jaamu yàlla ya sell ca jikko ya ba jëflante yépp mën a maase mën a baax wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain